asalaamaaleykum mbokk internet Dakar Buzz euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar euh, comme nag ni ñu koy baaxee rek di amale saa su ne xam ngeen ne Dakar Buzz moom euh, lépp lu xew ci réew mi rek dañ leen koy daal di indil waaye nag rawatina ndaanaan yi nga xamante ni baaxoon nañu saa su ne di leen dalal di waxtaan ak ñoom ci actualité bi di waxtaan ak ñoom ci seen manin tey nag ndaanaan bi ñu dalal nañu wax macha allah ndaanaan kullu fadlin la ñu dalal tey ki nga xamante ni la wax na fi lu baree baree bari ñu teg ko bët ki nga xamante ni moom itamit nee naa leen askan wi ñu bari bëgg nañu ko ndax euh, gëm gi mu gëm diine euh, bëgg gi mu bëgg Serigne tubaa rawatina nag li mu mën lool li muy def euh, kooku mooy kan mooy Selbé Ndom Selbé Ndom la ñu seet tey boroom yëmbal ñu bari nag xam nañ ko ci liggéeyam daan na wax lu mel ni làmb surtout laalu làmb ci lañ gën a ràññee waaye tamit lu mel ni wàllum nguur gisoon nañ ko mu ci wax rawatina match yi nga xamante ni moo fi daan am gis nañ ko 2019 ah wax na Macky Sall bi muy falu yi tamit gis na ko ah, coupe bi tamit am na lu mu ci waxoon te am na luñ ci gis fas yéene nañ ko waxtaanee. mi ngi noonu comme niñ leen ko euh, waxee rek la nee naa leen gis-gis yi fi am euh, bari na euh, ràññee nañu ko lool nag lu mel ni ci wàllum nguur ndax waxoon na fi Macky ne dina toog bi loolu weesoo yi 2019 gis nañ ko fi mu wax ne coupe bi dina ñëw gis nañ ko barki de moo njaay tamit mu jóg jaayante ah tabarkalla macha allah ba suñu borom indi coupe bi wàllum làmb tamit daan na ci wax lu baree baree bari kooku mooy Selbé Ndom ah, moom la ñu ñëw seet si tey fas yéene sekk ak moom li nga xamante ne moo di waxtaan bu yaatu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 di ziare ñëpp di dem poroxaan sama xol baa ngi poroxaan kenn ku ci nekk nag am nga xarit am nga kóllëre am nga ko gëmal sa bopp ginnaaw yàlla yonent bi muy Seydi Mouhamed Moustapha si sëñ Moustapha si doomi Cheikh Tidiane Al Maktoum surtout Serigne Babacar Sy surtout Seydil Hadj Malick Sy surtout Cheikh Ahmada Tijani doon Cheikh Ahmada Tijani di leen di kontaan ci gis ma la gis tey di nuyu borom Dakar Buzz di Omar macha allah di ñaan Sénégal suñu borom gën fee yokk xéewal rek ndax géej gi moom ubbi na ba pare te jën yaa ngi fii macha allah. <laughs> mi ngi noonu macha allah comme ni ñu koy waxee waaye Amadou waa Sanoo taaral ah, fàttewuma leen ah, benn yoon gis ngeen ko maquillage bi yanj bi ñoo fi jaar tey ah, jaar ci bopp bi ki ne ak xaw Xawa maa ngi leen di jaajëfal lu baree bari yaay booy ñu dugg ci suñu biir waxtaan comme ñu ngi doog a jàkkaarloo saa su ne man nag samay invité damay bëgg a xam ci ñoom luy yaatu bala ñuy ñëw ci lu ñu war a waxtaanee nga fàttali ñu tuuti kan mooy Selbé fan nga juddoo fan nga yaroo. waa la. bi sëñ Tuubaa waaye ci xeet yi ma bokk dafa bari ndax sama yaay naaru Kajoor la sama papa muy séeréer maanaam sama yaay wàllam wàllu yaayam maanaam ay wàllu yu lañu ah, bokk ci xeetu wàllu yi sama yaay papaam surtout ma ñaaw silla la kooku dafa amoon xam-xam sëñ Tuubaa moo ko tudde lum ñaaw ñaaw dim kaang sama maam ki jur sama yaay ku góor boo demoon taal euh, assemblée national duñ la du dikki fenn ndax bu la bindalee ne la demal nga taal ko boo taalee ba mu tàkk nga sotti ndox wax ji fa lay yem paa aay la woon waaw macha allah sama wàllu baay ñu nekk ay buuru séeréer mboofeel gi Youssou Ndour di way muy déegu jinne yi ñun ñii ñoo ko moom waaw sama kii maam la foofu xalaatoo sol fa daal xalaatoo euh, musóoru sama papa seen côté dafa am ay tuur nga xam ne booy tuur euh, doo sol daal musóoru sinon tuur yi mën nañ laa daaneel foofu famille xam-xam laa bokk waaye dama naan du loolu lépp yàlla la subhanahu wa taala moo ma may ma judduwaale ko du lu ma jàngi ndax sama métier li ma jàng mooy toggu crochet yére bébé waaw létt loolu ma doon sama métier mais yàlla indil ma lii ah xëy na loolu moo ko neex ma ànd seeg moom rek <coughs> mi ngi noonu wax nga ko euh, ci métier bi sax laa jëm si woon ndax saa su ne tamit dañuy bëgg a xam euh, nit ki yan métier la def euh, gannaaw bi nga defee ay crochet yére bébé comme ni nga ko waxee ak yooyu gis nañu tey ci li ngay yëngu ñu ci bari dañ ci yëngu waaye amaana xëy na jàng bi demeewul noonu ñu gis ko yaay booy tout toujours mi ngi yor ay kaamil ay ay yu leer nañ ñi lay wax macha allah njàng mi fan la toll ak fan nga jàngee. jàng naa mais sama jàng bëriwul. yàlla moom ma may rek ndax euh, bi may bàyyi jàng boobu xale laa sama sama yaay dafa amoon ñetti wujj ñetti wujj yi kenn ku ci nekk am na ku lay liggéeyal man maa doon taawam léegi nag may jàngi su ma ñëwee fekk sama yaay togg bi yéex te dafa bañoon añ bu naaje faaw mu commencé déconné ma xëy ma ne papa bàyyi naa jàng mu ne ma lu tax ma ne ko sama amul ku ko dimbale. Mm-hmm. xale laa ay 12 ans ma ne ko ñii ñëpp am nañ ku leen dimbale sama yaay rek moo amul ku ko dimbale kon man bàyyi naa jàng loolu mooy yàq sama jàng. mais arabe moom jàng naa ko français tuuti laa ci jàng daal mais yàlla daal moom ma may maanaam lii lii tax may jàng alxuraan ci bopp bi lay nekk waaw aaye bu ñëwee rek dama koy daal di génne loolu la ma yàlla may waaw waaw don de jël rek. Mhm. ayca <laughs> mi ngi noonu bu leen fàtte ba tey sal Ndom la lañu am ci biir euh, Dakar Buzz euh, fas yéene waxtaan lu baree bare euh, xam-xam bi naka la la dikkee. dama ko judduwaale <laughs> dama ko judduwaale man balaa maa juddu la benn paaw soose ñëw fi sama atelier papa sama papa defaral ko rajoom ba pare may ko ko mun na ko danga ma ko may bàyyil ma fay la mun na ko déedéet doy na merci beaucoup mun na ko amagoo doom bu jigéen de mu ne ko dangay jaay baax dinaa la woon ne maa la gën a baax amagoo doom bu jigéen mu ne ko déedéet am naa juróom benn yu góor xaw ma juróom yu góor mu ne ko gan mi ngi ñëw si ñëwee ci ëmb bi rek di nga xam ne gan la fekk na sama papa da doon loué jamono yooyu baraak moo amoon sama papa da doon loué man bi ma sama yaay jëlee ëmb rek te la sama papa commencé am am alal ci neuf mois yi sama papa am na ci kër ba tabax ba sama propre kër papa laa fere dama doon papa lii dina ñëw papa xoolal lii sama maam bu góor bi ma lay wax ne moo jur sama yaay bi muy gaañu suñu kër laa tëdd ma yuux ma ne woy papa sama maam mi ngi dem sama maam dem na sama yenn laa ilaha illallah fekk sama maam daa feebaroon sama papa ci la ma jur yëkkati ma mu ne sama yaay sa mbokk yi nañ bàyyi sama doom xanaa kay moom li muy gis man sëlëm nañ ma ba sonn sëlëm nañ ma ba sonn. maanaam pour bul gisati. waaw pour pour pour pour bu ma gisati bu ma waxati mais yàlla bu nekkee ci yow maanaam mm, kenn du lu mën a arrêté. Mhm. Mhm. Euh, est-ce que bi mu bi mu bi mu ñëwee bees yomboon na euh, ci sa waajur yi parce que nga jur sa doom xëy rek mu commencé di wax lu mu wax mu am paa bi naka la ko dundee woon jamono yu ak mère bi. sama papa comprendre na ma parce que lépp lu mu jur maa ko ci gënal ba ma ba ma juddoo la la ñëpp. sama taawu yaay mu may ko sama nijaay si kab baaw baab sama mag keneen ki mu yóbbu ko sama kër bàjjan sama rakk bu jigéen ñu jox ko sama doomu bàjjan bu jigéen sama rakk bu góor ñu yóbbu ko daara beneen sama mag bu góor ñu yóbbu ko daara maanaam ñeneen ñi jabaram sax bu ma mësaan bañ dalay fase bi sam papa gaañoo nag bi ma commencé wax la sama mag commencé na ah lii moo taxoon paa bi paa bi fonk la lii moo toxoon paa bi bëgg la ñun xamuñu ko woon mais sama papa man rek la fonk bañ na ko ba dafa ne moom bu deewee na ñëpp jooy mais man bu ma jooy te bi mu gaañoo aussi noonu laa ko defal dama takku ne nit ñi bu leen jooy liggéey na ba une semaine daal xaw ma cinq jours la toog ci àddinaam yoo xam ne liggéeyul kon maanaam ñu sant yàlla rek ba tey jooyuma ko Euh, dégg naa ko xër ci euh, Serigne Touba la woon euh, ba daan nañ ko gis lu baree baree bare muy togg di joxe ay ñam yan seede nga ñu ci mën a defal comme sa xarit la yan kàddu kàddu ngeen mujjoon weccante. waaw loolu moom maa ngi leen ñaan ñu mujje ko sinon sama émission day yàqu ndax man ku bëgg sama waajur bu góor laa tey nu ma mel rek moom laa koy sante mu doon góor gu jàmbaar nañ bàyyi ba ci fin bi daal sinon sa émission day yàqu. <laughs> d'accord mm, ayca mi ngi noonu ah, ah, émission bi nag bugguma bugguma mu yàqu parce que tey li war a leer <laughs> ah dafa bari tey li tax Dakar bu déplacé wu ñëwaat ba fii tey li war a leer am Malika dafa dafa dafa dafa war a bari kon ñu ñu ñu pose loolu demaat te ñëw mm-hmm. ñu dugg nag ci li nga xamante ni mooy euh, euh, euh, ndey mbi ligi Salbé gis nañ ko ci kan bi. defoon na ay vidéo def ay sorties wax lu baree bari ci li nga xamante ni coupe bi dafa war a ñëw dañuy njëkkee ci bi nga bi nga njëkkee wax ne coupe bi dina ñëw muy 2019 naka la la dikkee woon ak gars yi nan lañ defoon ba ba këppatal ko dégg naa dañ ko këppataloon ak saako këriñ. waaw waaw waaw xam nga 2019 bi damaa dem dem dem ba final yaakaar ne man mii damay am coupe. boobu sax match yaa ngi wax ne ndam dina am. incha allah incha man léegi maa ngi lu gën a garaaw sax ndax tey jii ñaari ci équipe bu tegoon fii ci tele bi di jouer su ma toogee eh, eh, joueur yi bu ñuy dugg si rek dinaa ne kii mooy gagné te boo xoolee ba fin noonu lay demee euh, don de Dieu am du loo xam ne dama dem jàngi wala dara maanaam commencement bi dama dem ba final 2019 bi ma demee ba ñu suba la final ba ma ne na ñëpp takk drapeau sama jinne bu góor bi ñëw moo nekk ci nopp nopp càmmooy bi ñëw tegal ma saako këriñ ne ma sel bi doo gañe ma yeewu ubbi sama buntu sama drapeau vert jaune rouge daanu ma ne c'est fini ci guddi gi nag gis naa ay sénégalais yu gaare oto ñëw am luñ jël ci kër gi yóbbu ko. mais ci janeer la la di ci janeer dam bu ma nee gëmmee rek damay gis nii jëkkëran damay gis dañ may won léegi nag man ci laa yeewu xale yi marché bi commencé may leen dañuy dóor ndax jinne ji bañ na gis ngeen bii bi biiwu jinne la. erreur bi ma def mooy bi ma wonee saako këriñ dama waroon jënd saako këriñ saraxe ko mais boobu tiit naa mer naa ne pourquoi ñu may yàqal gëmuma ko woon à cent pour cent mais nag bi mu la laa dégg Sénégal jubilé en deux mille dix-neuf yi waa nekk benn jubilé ñëpp béggee ma ne eh kon match bu amaatee ci laa ko wax monsieur le ministre Matar Ba ne ko bii perte nañ mais incha allah xaaral waaw beneen day ñëw léegi nag bi ñëw bii ma ne nag ginnaaw bale am na joxoon nañ ma ci saraxu final bi ma def ko rëy gileem maanaam samay jinne yi bañ maanaam yàqal ma ak ñeneen ñu ma doon yàqal bi yoon ci kàttanu yàlla xam naa ne Sénégal jubilé na depuis deux mille 2019 léegi naa noppi xaar ba mu ñëw. ba mu ñëw d'accord ñu mm, ñu taxaw foofu des ci 2019 bi euh, lan moo taxoon sa jinne yàqal la. jinne bi dafa soxor man xam nga toog naa vingt ans aw ma jëkkër presque vingt ans. ndax boobu sama doom bi nii nekk am am nekk xale man bi may divorcé xale bu ndaw laa bi may divorcé xale bu tuuti laa bi may divorcé aw ma sax vingt ans ne divorcé aw ma vingt ans mais eh, sama papa doon nañ ko wax ne sa doom ji dafa am rab tey jii ku ko takk tamit du yàgg man ma jëkkër balaa maa takk def na lu ne ñu ne ko doo doo yàgg ak moom def na lu ne def na lu ne far gis nga yàlla def euh, ma am moom ñaari doom rek sëy bi suñu borom yemale ko fi toog naa daanaka vingt ans bu manqué tuuti wala mu mën vingt ans yoo xam ne aw ma borom kër te gis nga xeesalu ma mais ñaaw jigéen laa comme ñëpp non dama dama bu ma defaroo macha allah dama macha allah fi mu ne dama bàyyi diw bi ndax alxuraan bi nekk sama pooj bi euh, moo tax euh, ndax dafa am ñu koy werante su ma bàyyi xeesal bi rek maanaam day ñëwaat. même bu ma xeesalee marque marque baa ngi foofu. marque alxuraan alxuraan am na fii ci pooj bi voilà. kon bàyyi bàyyee xeesal bi day ñëwaat day day leer na. normal ni meloon lay melaat fi mu ne nii ñëwaat na parce que gëj na bàyyi naa xeesal noonu laay def yenn saa bu ma xeesalee ba mu ba mu neex ma damay arrêté xeesal naa lu ma vingt ans aw ma trace ma aw ma dara xeesal moom moom mooy loolu. mais mais jinne bi moom moo lay teree am jëkkër yow la koy yow lay fiire ak gaay mais gaay yi ngi ñëw. wala kenn ñëwul ñëpp la kenn ñëwul kenn ñëwul kenn ñëwul darajee Seydina Mohamed xaw ma kañ laa gëj a seen sax sax kuñ naan góor sant yàlla sant yàlla parce que mënoon naa fee gën a métti daal mais sant yàlla yaa ngi mënal sa bopp rek sama bopp soxorul bu nekkoon dafa soxor kon du ma am dara mais góor tam bu la bëggee même même góor day am jabaru jinne am na góor ñoo xam ne mën nañoo dem ba âge te ñu am soxna loolu yàllaa ko def moom lu ma lu ma judduwaale la mu ànd ak man voilà kon na gars yi jinne bi mi ngi fa léegi wala dem na pour tonton yi ñëw <laughs> no loolu nañ bàyyi mu sedd man samay doom laa tal sama ah, njaboot mën nga am wéetal rek sama njaboot laa tal euh, li ma toog bari na bàyyi leen ma continuer nii rek waaw yenn saa dama naan bëgg naa jëkkër waaye yenn saa dama naan <laughs> bëgguma jëkkër hmm. d'accord Euh, macha allah ñu delluwaat ci euh, waxu 2019 euh, bi jinne bi bi mu la yàqalee ñeneen ñi nga xamante ne ñoom nga gis ci ginnaaw ñoom tamit ñu la daan yàqal ñan la. ay senegale laa gis ñu gaare oto yëkkati drapeau bi yóbbu gaare sama buntu kër fii yóbbu drapeau bi yóbbu jël drapeau yóbbu ko mais après dama wax ak jinne gi nag saaga saaga dama tëju sama néeg di saaga ba xale yi tiit defe ne daa am ku may waxal léegi ci la ma wax ne ma Guinée la nekk. léegi naa ko baal. barke Seydina Mohamed da sama néeg laa tugg di saaga ay ndey di saaga sa xam naa nit ñi dinañ ne mair dafa dof fekk dofuma dëgg laay wax parce que dama tiim kaamil dama tiim kaamil te kaamil kenn di ko tiim di wax loo xam ne amul ndax yàlla moo fi nekk kaamil boo koy téye na wax loo xam ne am na sinon da ngay al te man yàlla rek laa yaakaar aw ma kenn ku dul yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne la moo ngi Guinée. mu ne moom Guinée la dëkk. gënal rek ma ne na ma bàyyi buum ma yàqalati moo tax bii moom wax dëgg yàlla sant naa ci yàlla. Euh, bii naka la la dikkee woon naka nga gisee ndam bi avant kan bi nga ko xool wala bi nga xamante ne gars yi commencé nañu. non xam nga man euh, bien vrai que ne gis naa ne deux mille dix neuf le Sénégal jubilé ñu war a am coupe bi kan bi commencé ginnaaw ñoom am nañu ma joxoon pour ma def sarox final sama sama jom mayatuma pour ma woo leen ndax dañuy yaakaar ne suñ demee final ñu dóor ñu moo tax ma volontaire jël li ma yàlla jox li ma yàlla dénk ma waroon koo dundee ak sama njaboot jënd ceeb ak diw ak di fay samay samay courant jë di war a préparer pour jënd sama benn terrain maanaam loolu ma ne soxlaw ma ko ndax sama réew mu am ndam moo ma gënal ma am fukki terrain ak juróom-ñeent loo xam ne ba ma juddoo ba tey réew mi musu koo am man jaral na ma jël sama këyitu kër alquran laa yor tayle ko pour Sénégal am ndam mm-hmm. waaw jaral na ma ko looloo tax ma volontaire jël li ma yàlla jox def ko ci parce que xamoon naa ne damay am ndam mm-hmm. chaque match bu ne suba la damay xool te joueur bu ñuy dugg si damay toog xool ci benn pronostic xam ne man mii damay am ndam ba biñ ne suba la final bi macha allah fekk dama doon def ay vidéo nag indi beneen facette boo xam ne xam nga làmb ji dama doon wax ne diw dina daan diw mais buñ nee suba la match bi rek damay féliciter Lions yi jël drapeau bi jël drapeau yi ne nii sama sama Lions yi maa ngi leen di féliciter félicitation euh, président de la République je te félicite ak première dame je vous félicite macha allah bu ko defee nit ñi ñi xam dinañ xam ne. ndam li day ma ne leen. gis ngeen football bi ngeen war a jouer suba maa ngi leen ci félicité félicitation Sénégal ci kaw ca kanam léegi ku ko gis da xam ne lii am na ba biñ ne suba la match bi bi ma tegee musique noonu di fekk di tëb nee naa Macky Sall ñëw na fi gaz am Macky Sall pétrole am na fi Macky Sall tabax na Ila Touba Macky Sall euh, defar na Dakar Arena jam ñaajo bi def na aéroport ci laa ko wax ne ko li la dese mooy coupe bi te tey jii incha allah di nga ko am jour tey bi béggee la tout la journée béggee dañuy fanaane béggee tey jii coupe moo la dese woon te tey di nga am coupe bi. defoon nga vidéo boobu. après mi ngi fii dinaa la ko woon man euh, dama wax bien avant moo tax ma ne woon duma laaj kenn dara du laaj kenn dara waaw xamoon naa ne damay am ndam maanaam gis nga t-shirt yi. bii mooy même wàllum togg gi sax dégg naa euh, bu ci ne rek togg nga ba ci final bi ñaari mbana. waaw parce que li ma yàlla jox la. te sama réew jaral na ma nee naa la tay la sama kayitu kër barakati laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ndax loo xam ne Sénégal mësta am euh, man mu am bu ma sañoon Sénégal mooy dàq États-Unis gis nga mooy bii mooy quart de finale bi bii laa def quart de finale bi bii bii nii ma def demi-finale gis nga ko. <laughs> bii mooy demi final bi hmm? bii nii bii nii mooy final bii nii mooy final bi waaw waaw moom laa def quart de finale bi dama def mbana yàpp ah, demi final ma def benn mbana yàpp xale góoru koñ bi yëpp fii la ñuy seetaane maanaam final bi aussi ma def ñaari mbana yàpp jënd saako pomme de terre saako soble vingt litres diwlin ci sama doole li ma yàlla jox d'accord euh, mu nekk lu am solo euh, comme daaw waxoon nga ci ren tamit waxoon nga ci euh, gis nañu ne ñenn ñi ñu ngi wax ne ñoom bu ñuy dem dina am ay ñaankat yu ñuy yóbbu te Selbé yàgg na leen ñaanal lan ma dox sa diggante ak ñoom ba tax ren ñu bàyyi la fi demoo daaw tamit aussi yóbbuwuñ la. no man moom bëgguma dem sax fu ñuy joué parce que man toog fi def samay sarax moo ma gënal tey bu ñu ma doon bu ma président waxoon Selbé ñëwal ñu dem damay wax déedéet parce que ñaankat dëgg du ànd ak équipe dem. nekk ci ay climatiseur ci hôtel ñaanoo ma di leen giñal ci lenn wàccel ma kii bi. am wàcceel ko caméra xam nga lii laa ilaha la di ko def nii jaru ko sax ma teg ko nii di ko waat ci billaahi yaa ngi koy gis faw nga jóg taxaw di ko waat ci billaahi wallahi watallahi darajey seydina mouhammadin coupe bi man Selbé Ndom maa ko indi Sénégal billahi wallahi watallahi ci quart de finale bi ñu suba la quart de finale indi nañ ma sama coupe tegal ma ko sama kawlal alquranu karim laa tiim ko wax ni coupe bi yaa indi senegal du dëgg man Selbé Ndom mii maa indi coupe senegal Sénégal di ko waat ci billahi wallahi watallahi darajey seydina mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam man Selbé Ndom maa indi coupe fii man maa ko wax depuis deux mille dix neuf man du ma dem fa football ba nekk duma fa dem ndax jour finaal samay sa fii samay samay saraxi bopp du ma mës dem fa football ba nekk man nañ ma bàyyi fii rek ma toog président nag dafa am loo xam ne da koo wax mooy euh, coupe du monde bi na joueur yi dem ba quart de finale président foofu xam naa émission ba ko bim bee ko jàpp na bàyyi ñuy dàbbali coupe yi rek di indi rek di indi. mais mais président bul wax loolu lool tam s'il te plaît boo leen di yab ñu dem coupe du monde ne leen indil leen ma coupe bi ah mais nañu yem bëgg naa ngeen dem ba ba ba demi-finale président bul wax loolu ñun incha allahu rabbi maa ngi koy promettre waa àddina bi di ko wàtti billahi wallahi wa tallahi tant que maa ngi dund incha allahu rabbi dootuma bàyyi sama réew ci li ma man dinaa ko def dootuma bàyyi sama réew mukk ñàkk dinaa dem ba jeex kon daal pare nga pour coupe du monde bi ñëw. pare naa pour coupe du monde bi incha allahu rabbi ci kattanu yàlla. pare naa ci kattanu yàlla fii ak maa ngi dund laa leen wax waxuma leen benn waxuma leen ñaar waxuma leen ñett waxuma leen ñeent alquranu karim laa laa teg samay loxo ne sama réew man moo ma gënal lu ne. aw ma fenn fudul Sénégal musuma génn dem États-Unis ni France ni Allemagne ni feneen màkkatal mu karama laa ñaanoon suñu borom may na ma ma dem deux fois màkka musuma génn fenn man nag ah président gis ngeen waa àddina bi. bii mooy bi nga ko waxee euh, dina falu. bii laa ko wax ne c'était en 2009 moom laa ko fekk fii ci Layeen ci Chérif Ousseynou Laye bi Chérif Ousseynou Laye génne àddina ba mu ñëw yëmbal fii di jaale si. ci laa ko njëkk gis ne ko yaay doon quatrième président de la république fekk gàddu koo yi bëgg maa jàpp tere ma mu ne leen bàyyi leen ko kila laa yuuxu ne ko yaa ubbi buntu Ablaye Wade bi ci ginnaaw ndekete pale bi am na buntu buntu ginnaaw mu ne ma man ma ne ko waaw ma ne ko yaay doon quatrième président de la république photo baa ngi nii c'était en 2009. jamono yooyu bu mu faloo seet si na la. déedéet seet si wu ma gisuma ko mais xam nga président amul jot lu yàlla dogalul lu yàlla dogalul maanaam man. dama gëm yàlla xëy na daf fa jotagut waaye nag xanaa indi naa coupe du coupe d'Afrique ah xanaa nag président nag dinaa la gis ah xanaa bi yoon su ma ko gisul tamit du tere man damay def sama wàllu citoyen ah def ci sama wàllu ne man sénégalaise laa sama doon patriote rek war a kiyal sama réew mu jëm kanam. d'accord loolu laa bu ñu taxawee tuuti ci wàllum euh, coupe bi euh, coow li bari na parce que ñu ngi gis ñeneen ñu nga xamante ne ñoom tamit euh, bi coupe bi ñëwee génn nañ ne ñoom ñoo indi coupe bi. kon est-ce que mbir mi du mbirum xëccoo ah, Amadou. moo tax moo tax ma teg sama loxo ci kaamil alquran. waat ci billaahi wallaahi watallaahi darajey laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi man Selbé Ndom maa fi wax ne. Sénégal jubile na depuis 2019 kon ñoom man maa leen jiitu depuis mille 2019 la Sénégal jubile ma wax ko monsieur le ministre Matar Ba chauffeur am laa ko njëkk a wax chauffeur bi eggee ko ko ne ko Selbé nee na bi yoon di ñëw di nga am ndam ndax Matar Ba dafa nekk ku baax sonn ci Sénégal sonn ci sport bi kon il faut suñu borom récompense kon kay man maay pay xam nga dafa am ñu ne xam ñooy yàllaay kese ñoom duñ tudd yàllaay kese waruñoo tuddee seen bopp yàlla kese parce que li ñuy wax du dëgg fii benn man maa fi waate barakati laa ilaha illa allahu depuis 14 ans lu ma wax ne barakati laa ilaha illa allahu kon man du ma xëccoo kenn de mais mais bu ñu xaatee ba ko bi ñëw kenn ku ne du ubbi sa gémmiñ benn man Selbé Ndom benn man Selbé ndoom mii taalibi Sëñ Tuubaa yi benn man maa fi waate ne coupe bi jël nañ ko depuis 2019 ne Macky Sall def na fi Ila Touba Macky Sall bu mu ñëwee la pétrole am Macky Sall bu mu ñëwee la gaz am mu def Dakar Arena Macky Sall tabaxaat aéroport kon li ko dese mooy. waaw ak waaw train bi moom moom mujje dama ko fàtte woon jërëjëf yow borom baax nga yaa ngi dégg kon li ko dese mooy téye coupe terrain dina ko am. vidéo bi dinaa leen ko jox ngeen yóbbaale ko bu leen neexee sa vidéo yëpp yi ma def yëpp ma jox leen ko. parce que Selbé taalibe Sëñ Tuubaa la man mii li ma yàlla may xam naa lan la li ma yàlla may xam naa lan la te nit ñi dofuñu euh, ñu ñëw ci sëriñ yi nga xamante ni euh, ñu ci bari euh, waxoon nañu gis nañ leen ñu génn wax ñii ne coupe bi du ñëw ñii ne <laughs> dañuy toog laataa ñu ñëw ci sëriñ yi sax. te làmb ji ginnaaw gis nañ am naa ci kër ca la xeex ba commencé mu am ñoo xam ne xalaatuma woon dinañ wax ne koo war a jël xaalis nga may ko nga ne yow kii sa mag la mu def la comme rakk mu mbokkal ndey ak baay maanaam waroo taxaw ay nit waruñ laa jëy ba nga taxaw naan su bëggee liggéey na dem seeti leneen te làmb ji jaaykatu caaf yi am nañ ci wàll jaaykatu ndox yi am nañ ci wàll yalwaankat yi am nañ ci wàll tëggkatu sabar yi am nañ ci wàll woykat yi am nañ ci làmb làmb ji wàll wal làmb dafa yaatu ñëpp ci mën a gis seen wërsëg te man dafa mel ni nuñ ma singilee xaw ma la xaw ma lan la. <laughs> dañ maa singili woon. dañ maa singil xam naa incha allah am na naa yaakaar ci yàlla ne fii laay doxee bàyyi làmb ci kattanu yàlla incha allahu rabbi. la ngay bàyyi làmb kay dañ ñuy wax ci diggante euh, euh, ñaari. non non parce que làmb lamb wax naa lamb wax président ba yàlla may ma kër ma tabax ko deuxième étage li ma gënoon a bëgg mooy ziare gi Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gis nga football bi bu ma ci concentré woo di xool euh, <laughs> Barcelone ak ñooñu ah, di ko di ko def live direct naan leen kii mooy gagné bu ma ci yàlla ba sëgalee mën naa ci am lu ëpp li ma am ci kër gi mais ay nit guru boobu di ma wax lu bon di ma fexeel xeex maak borom télé yi TFM jëlatuma 2STV jëlatuma sama question la woon bu Gueye dañ Bougane moom mi nga xam ne maa waxoon ne bu Bougane Gueye dinañ ko dégg ndax gis naa ay t-shirt yu ñu bind Bougane Gueye Bougane Gueye jëlatuma télé yu bëri kenn invité tuma ndax lan benn wokkatu télé moom moo fi invité Baye Ndiaye rakku Aziz Ndiaye ne ko saagaal Selbé Ndeye maa ngi koy doog a wax kooku ne ko saagaw ma ko ndey keroog Baye Ndiaye dafa gedd plateau bi ma koy remercier ci loolu. kan la ban télé la ban la xam nga dafa am loo xam ne man defuma kenn. góor la wala jigéen et pourtant pourtant pourtant kooku def ma doon jël si fii. moo ma yóbbu kër Bombardier ci mbuur xam nga wëlbatiku ñuy indi ay di fal ay seetkat ak yooyu gis nga mën fii Sénégal barakati laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi benn seetkat mënu ma fi billahi wallahi watallahi seetkat yi maa leen mën fuuf góor ñi maa leen mën fuuf lool la yàlla dogal xam-xam yàlla mooy maye nañu xam lool nañu xam ne yàlla moom mooy maye c'est pas parce que dafa may góor du may jigéen ren jigéen ji fete na leen xam nga fete ni ñuy fete yére laa leen fete gis nga du ma sa morom jot a xeex wala dóorante danga koy jëf mu gis depuis 2019 laa wax ci kaan bi loo xam ne Sénégal mosu koo am neel président am na ndam président def na fi lii def fi lii def fi lii ba mu fi ñëwee def na fi lii moom ak jabaram am nañu ndam d'accord léegi ñu ñëwaat tuuti rek ci euh, euh, ci ki ngay wax ne moo nekk ci télé bi euh, waxoon ne baay Ndiaye ci sa gémmiñ ne na ko saaga ba kan la kan la ci ñoom. kooku xam na boppam. faaw nga faaw nga leeral ñu xam ko parce que ñun ñun Selbé Selbé télé yëpp lañ ko daan gis. loolu sama question la woon parce que. télé yi nag moom kenn jëlatuma waaye coupe da coupe bii ma indi Sénégal télé bu ne a ma woo ma taxaw indi sama kaamil ne leen Selbé Ndom moo fi indi coupe bi. léegi kooku lan ngeen jote woon ba mu wax ne ba wax ne nañ la. sal jal bu yàlla jal boo ko jalee mu jal jali soo ko jalul mu jal jali teñ koo jal mu jal jali looloy wax ji ma ne su ma coowee coow li bari su ma coowul coow li bari kon damay coow coow li bari rek mooy wax ji man nag yàlla dafa ne laa tam suufil addi maraxan loolu tax duma ma réew du ma beew te duma ma fuuy ndax suuf si ngay jóggi di balballu di di di tëbaka dal bu ëllëgee suuf si dalay war te suuf buy war nit yàlla na ko waree ndànk looloo tax mënumaa réew mënumaa bew mais kooka léegi sax moom daa fay. góor loola jigéen temps yi Sénégal li booy wax maa ko téye. yaa ko maa indi coupe bi. Euh, kon daal yow bu ñu déggee tey wax dafa mel ni kooku moo tax nga bàyyi làmb. non kenn taxul ma bàyyi làmb man maa jël décision ne damay bàyyi làmb man su nekkoon man dong waxatuma làmb du nag damaa ragal mbindeef muy teg tànkam ci suuf ba tax ma ne damay bàyyi làmb man maa amee tension. te lamb dafa métti diw mooy daan dafa métti say mbokk ñu nelaw say doom sama doom bi nekk Casamance daf maa wone may pap yaay fi mu nekk nii dootoo am loo am amatoon ci làmb yaay bàyyi soo waxee làmb man duma xam lu may liggéey te dafa yore oto mën naa dawal mu def accident wala leneen waaw man daal incha allahu rabbi fas naa ko yéene ah fas yéene bàyyi làmb incha allahu rabbi. di ñu wax diggante euh, euh, euh, Euh, kii Bombardier ak ëmma euh, ah. kii ëmma seen Bombardier seen Modou Lo Ama Baldé ëmma ëmma seen Bombardier lool lu bees la bi résultat amagut yaa ngi dégg mais Ama Baldé ak Modou am na ku ma jox caabi ci ñaari mbër yi ba mu ubbi benn néeg man am na kenn ku ma jox caabi gis nga man nag ay xam ne dama bokk ci Sénégal boolewuma ci sama bopp yàlla moo ma ci boole adduna bi yëpp xam nañ Selbé gars yi bu ñu duggee sama TikTok Selbé Ndom la voyante la plus célèbre laa ci def lépp lu ma def di nga ko gis foofu maanaam maa dawatul dara maa dawatul dara. d'accord comme dawat comme dawatoo dara yaa ko wax léegi yaakaar naa ne lu ne fàng moom kenn du ko jeex euh, mun naa ñaan foofu nga laal noonu fi nga wokk noonu man daf maa neex lool ndax da doon xasan muy diggante Modou Lo ak Ama Balde am na koo ci jox caabi ba mu ubbi buntu kan la ci. Ah, ah, waaw léegi làmb ñu ngi def mois de mars la xaw ma. si na ñu ngi ci février. waaw février mars su egsee may naa la Dakar Buzz ñëw ma wax leen diw laa jox caabi moo ubbi bunt bi te ki ma jox caabi koo koy am ndam waaw. ci mos déedéet dafa njool dafa gàtt. <laughs> xaw ma de <laughs> ñoom ñaar ñaari mbëri yëpp a gàtt di ah. pour wax daal maanaam ñi nga xam ne dañoo nekk bitim réew te gars yi di leen nax am na ñu nekk ci Facebook. yow boo nekkoon États-Unis su ma xoolee sa Facebook sa numéro États-Unis da ciy nekk mën naa la ci woo ne la barke laa ilaha la man la man la Selbé nga yëkkati sa xaalis ay 5000 euh, euh, dollars wala 5000 euros ah wala 3000 euros wala 4000 euros di leen ko jox. bu ko defee après danga may attaqué ne man la fekk xaram man sama loxo dafa set wécc liggéey naa ci 14 ans ku ma soxla woo ma ci 77 744 39 18 seetkat bu mag bii yàlla fal. moom ngay moom ngay gis woo ma ci 77 737 67 46 man Selbé Ndom ngay jot wala 77 447 80 25 te ñu gëm yàlla nañu gëm yàlla ñi yàq nañu bàyyi Selbé Selbé du fowe kaamil ndax xam naa ne àdduna bi kaamil du fo nañ bàyyi yàqante bi Selbé li muy am am na ko ci làmb ba pare kër gi xam nga jërul un million gis nga li ma fi def yëpp fii euh, Coupe d'Afrique bi laa ko kii ñii ñëw si njëkk a dugg Dakar Buzz mooy ci njëkk a dugg vidéo ma sama première euh, café gi dama am ndam Sadio Sadio maane même Sadio maane dara jëy Seydina Mohamed tuddal nañ ma Sadio maane mm, d'accord dinañ ñëw ci Sadio Mané bi euh, balaa ñuy ñëwaat ci loolu dañu gis sëriñ ñu bari taxawoon ne coupe bi du ñëw. léegi meewuñu wala pàccal farax luñ def <laughs> gis nga. bu ñu yab nit ñi bu ñuy sàcc xaalisu nit ñi nañ sàcc xaalis nit ñi bu ñuy door nañu door te ñu bàyyee gis nga am na ci koo xam ne moom kooku kooku président Macky Sall da ko war a tëj sax. moo ci kan. Moustapha Darame Moustapha Darame est-ce que jullit la est-ce que Moustapha Darame yow yow Moustapha Darame nit nga ndax maanaam Moustapha Darame nañu xool sa bopp bi ba xam lan moo ci nekk. man soo ma yóbboo brigade de recherche maa la fa ëppale fuuf bu la neexee nañ dugg palais ci président de la république yow Moustapha Dramé yow nga ne citoyen nga doonub sénégalais jàng bismillahi rahmani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad xanaa jàngoo raditu billahi rabban wa bil diinan wa bi sayidina muhammadin nabiyan wa rasulan sallallahu alayhi wa sallam ay Moustapha Dramé akama laa fonkoon waaye li nga ne yaa liggéey Sénégal bu dee handball wala muy basket wala muy volleyball comme ni nga ko waxee ah Sénégal du ma am coupe ndax am na ñu la jox xaalis Moustapha Dramé am na ñu la jox xaalis ne la nga yàq équipe national ba bu ñu am coupe kon yow xaalis moo la gën a sa ay Moustapha Dramé tuubal. dafa waxoon ne am na li mu def benn sëriñ mënu ko. mënu koo dindi léegi man li ma def Moustapha Dramé lan la kon man li ma def nii waat ci barakati laa ilaha illa allahu ne dina ñëw ba muy dëgg ay Moustapha Dramé man de bëggoon naa la ndax doomalaat laa maa ngi la doon xool ci ku am personnalité ndax dóor dóor yi man dama ne man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaafa alayha man loolu laa jàppe kenn ku ci nekk ni ngay tege sa bopp jinax yaa ko xam mais li nga def ëpp na rusloo na en tant nga ne sénégalais buñ la fayoon ay milliards tamit Moustapha Dramé buñ la fayoon ay milliards tamit maanaam boo ko defoon sax war ngaa nëbb ne man mi maa ko def waaye dinaa leen duma billahi billahi allazi laa ilaha illa huwa barakati laa ilaha illa allah nañ la yow yaw waxoon di nga duma Sénégal ndax boo waxee duma nga Sénégal duma nga kullu Sénégalais kullu Sénégalais góor ak jigéen mag ak ndaw ba ci président ak première dame ministre ak yëpp da leen da nga ñoo bëggoon a toroxal xanaa xamoon nag inna allaha ma anna inna allaha maa Sénégal waaw <laughs> billahi wallahi wa tallahi li Seydina Mohamed waxun Abu Bakr ca xuntuma mooy pax Abu Bakr Siddiq gis jël tànk ba taf ko ca ndeket jaana ca nekk ne yonent bi tëddal fii yonent bi am lu mu yëg ne ko yaa Abu Bakr mu ne ah, mu ne ko laa tahzan inna allaha maana waaye inna allaha maa Sénégal yàllaa ngeeg Sénégal fi ne nii yàllaa ngi fii fii la dëkk ak ñun ndax fii la Seydil Haaj Malik nekk fii la Cheikhul Xadim nekk muy Serigne Touba fii la maam Limaamul Mahdi yu nekk fii la Bunkun Bukunta nekk fii la Cheikh Ibrahima Niass nekk ah ah waaye yéen yéen ah moom lii mba mbaa baax na lii